waaw man moom li wax ci série bi mooy ci problème mu xaalis bi quoi parce que booy xool même bu daal mi sax ñu baree bari tey buñ xoolee affaire yi doxee jàpp nañ ne bayti moo ko jël parce que mi ngi commencé woon changé lu sol ay yére yu rafet di maye téléphone affaire yooyu noonu ñu baree bari seen xel loolu lañ tegoon mais ba tey tamit foofu maanaam pour jàngal la rek ak ab yeete parce que booy xool tey ji àdduna lu baree bari noonu lay doxee nit ki da ngay nekk ci kër wala nga nekk ci koñ. xëy na xëyoo gonto di sol ay yére rafet lu ci xew rek dañ naan ah diw mi comme ni ko olof di waxee naan góorut jotut xel xel yëpp day ñaaw ci moom mooy ñaaw njort ci ñaaw njort baaxut nit ki moom bala nga wax nit ki moo jël nangam da ngay xaar ba teg ci sa bët mais ak sa moom ne diw la fekk ñoom xamoo ci dara maanaam sa xalaat bopp rek loolu moom ñaari képp ku koy def rek xamal ne bis dina ñëw nga nax sa bopp. parce que yaakaar naa jël alalu jàmbur moom du ci yére bu rafet du ci daal bu rafet nit dina sànce lu rafet te lum romb lum moomu daf koy jël nit ki nag dina ñàkk ñàkk ba nga xam seen tey ji daal bu muy sol sax boo gisee da naan kii lii na lii nag lan nan na ko nit mën a sole te bu romboon alalu jàmbur tey amu ci soxla moo tax chaque jour ni ñuy bàyyi di ñaaw njort te booy xool àdduna lu baree bari noonu lay doxe nit ki bu fekkee xëyoo gontoo lu ci baree bari bu ñëwee dañ koy teg sab der te àdduna tamit aussi demewul noonu ñàkk liggéey du la tere maandu ñàkk am du la tere maandu kon loolu ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax asalaamaaleykum waa Louxew TV ñu ngi leen di di leen ziar di leen jaajëfal bu baax di jéglu si gëj a dugg gi waaye tamit ñu ngi rafetlu programme bi li nga xam ne noonu lay tëddee daal waaw bu fekkee si côté euh, épisode nga xam ne moom moo daw démb mooy bi nga xam ne itmaan boobu la war a dem prison waaye tamit man naw naa ko ci côté boobu ndax de mu def rek loolu la war a def ndax daa war a dem déclaré boppam ba pare loolu la war a njëkk a def waaye tamit am na ñi nga xam ne moo ki nga xam ne am na xelum jiite brigade bi waaye tamit am na xelum defal leen waaye tamit li wax rek ana daan ne moom loolu rek la war def comme solution te xam naa ne solution bi bu fekkee tamit ci côté Jules César ak euh, Yandé Jules César dafa day oo Yandé pour am information ci brigade bi wala day woo Yandé pour am information ci Ana man daa affaire loolu moo xaw a lënd sama bopp ndaxte ñoom ñaar dañuy déggante te bëggul waa brigade ba xam ko. waaw salaamaaleykum sama mbokk taalibe maa ngi leen di siyaare di leen di leen nuyu bon affaire Serigne moom Serigne loolu moom am na ñoo xamante lu bari xam nga ñoo koy yàq waaw parce que du Serigne sax am na ñoo xam dañuy dañuy dañuy sol mbubu fek fekk ñoo dara. waaw ñoom ñooy yàq réew mi ñoom ñooy yàq àddina bi waaw mais sëriñ dëggantaan moom kook moom lu ma la ci wax moom loolu mooy am mais ñoo ñoo yombul waaw ensuite bon yow sama bon monsieur le maire tamit moom lu mu def dem moom num ko réaliser man moom ànd naa ci trop ànd ci trop parce que moom góor la bu ko neexee mu takk ñett ba ñeent loolu moom moom mën na kaa def te idée boobu sax moo koy arrangé parce que dañ ko doon fiire nii nii di jaxase këram bon nu mu ko réalisé nii moom man moom bon ànd naa ci trop sax